salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna am ah, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne di leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 point com ah, ñu koy defee rek di ànd ak yéen saa su di leen dalalal ñenn ci ay ndaalaan ah, di leen dalalal ñenn ñi nga xamante ne ngi leen xaar fii ci Sénégal Buzz waaye ni ñu koy defee rek ñu ngi fii nga xamante tey moo di Gambia ci restaurant Tea House dalal ci nag ndaanaan loo xamante àdduna xam nañ ko Sénégal xam nañ ko muy def lu am solo ci milieu art mu di di la nuyu bu baax di la sargal di la delloo njukkal nag di la xamal ne kontaan naa trop tey fi ñu nekk fii ci Gambia mm-hmm. nekk ci restaurant bu mag te yoos uh-huh. waaw ñaari ñaari couple moom ko uh-huh. ah kontaan naa trop di nuyu Sénégal sama dëkk ba di nuyu waa Diourbel mm-hmm. dëkk la ci biir Sénégal dëkk bu ma gëm ndax fa laa bàyyi ko ñëw Ndakaaru Njaay may nuyu Diourbel bu baax di leen sant di leen gërëm mm-hmm. di ñaanal àdduna bépp jàmm uh-huh. waa Sénégal buzz ah waa seen buzz ñoo ngi yëngal kenn du ñoom kenn du ñoom ci réew mi yu mag fi yàlla teg dañu koy nangu rek waaye nag dañuy door ak yow rek li nga xamante ni tey moo di suñu waxtaan li nga xamante ni nag moo ñu jëlee Sénégal indi ñu fii ci Gambia muy événement bu mag bi loo ci développé. waaw ah, li ñu jëlee woon Sénégal muy ñaari bis. bis yoo xamante ni gis nga bi mu commencé ni ko waale def fii ci Gambia. Mhm. ñaari bis yu am doole ci stade bi. may nuyu tamit sama kilifa googu Waly Ballago di ko nuyu baax di ko ñaanal di ko sargal di ko xamal ne ko moom feeg mi ngi dund du ma tiit dara. feeg mi ngi fi rek du ko tiital dara ndax am na jom am na ngor am na fulla te àddina bëgg nañ ko. maa ngi koy nuyu bu baax. ah Gambia daal xamul loon Waly defal. waaye na ko yokk ndax Gambie jox nañ ko bopp. Gambie bëgg nañ ko ah déggal dëkk secret Wally lan la yow mi nekk ak moom xam Wally. waa secret Wally mooy euh, liggéey. di wax tey liggéey lu bari loolu mooy secret waali ba pare am jukko bu nice ak partager esprit esprit mooy partager ak généreux ah te xam ne li mu bëgg xam na ne bu joobee mën na ko am li mu bëgg xam na ne su teeyee mën na ko am li mu bëgg xam na ne bu yaroo mën na ko am loolu daal mooy secret waali waaw. loolu mooy secret waali di def social di def acte yoo xamante ne li ko yàlla di jox mu koy delloowaat ci kaw askan bi loolu tamit nekk loo xamante ne marqué na sénégalais tamit. mais mooy li ma la rek xam nga waali day nekk nit koo xamante ni tamit xam na fii métti le waykat boo xoon naan wax ma fuy métti ma fajal na ko waale xam na fii métti xam na ko nit nag àddina bala nga ciy dox mooy faaw nga xam fii métti boo gisee nit ki xam cër bi nga ko war a jox soo bu nit day jooy nga xam kii ay jooyam lan la nga fajal ko ko waaw loolu moom ak dugg ci biir nit ñi nit bu la yàlla xam nga fi mu toll ni yàlla may na ko pouvoir yàlla defal na ko li mu koy defal mais daf ko da ko da ko da ko bàyyi ginnaaw waale yëgul succès bi succès nag boo ko yëgul ci àddina mën nga am lu bari yëg succès mooy yàqal doomar mais boo gisee li muy def nga waaw loolu ak jàpp doomu aadama ak di leen dimbali ak yërmaane te xam ne lu waay defati defati xam ne bu gisee nen ne ne nañu looloo ko bàyyi ci sénégalais yi looloo ko bàyyi ci sénégalais ah muy kadd yu ama am solo jógee ci ndaanaan loolu di Cheikh Mbacke waaye ba tey rek dañuy des ci li nga xamante ni tey moo di milieu art Cheikh Mbacke nekk ci art doon fecc ñu xëy tuuti rek gis seex Mbacke nekkaat ci beneen facette lan moo waral changement boobu noonu ci art bi waa àddina moom boo ragalee doo am dara soo ti ragalee doo am dara Cheikh Mbacke géwél la mi ngi bàyyi ko benn dëkk bu ñu Jurbel wax naa la ko sànq do di fecc ba tey day fecc hmm. mais tamit dañ ne bu yoon jeexul waaxasul du jeex bi ma demee ba xam ne ñoo ngi fecc te xam naa ne wax dëgg yàlla doomu géwél laa mbuub laa sant alaaji ndend bu bay sama baay Maguette Kende sama yaay ma leen nuyu sama ñaari waajur yu baax yooyu xam liggéey lañ ma kontaan trop ma xam ne comme que fecc naa ba ci yàgg nag war naa mën a génne ay single du ma ko fàtte maa ngi àndoon sama benn jigéen bu ñuy wax Njole Taal maa ngi koy nuyu bu baax Njole Taal di taal bi Serigne baax bëgg waal lool Njole maa ngi koy nuyu maa ngi moom ñoo ànd di dem HLM muy taw taw bu metti Ndiolé Tall daal ne ma Cheikh pourtant sa voix yow boo defee single bañ a ci fecc mi rek day nice ma testé kaf génn premier single muy yegsi na nga gis ni mu demee ñu dem ba ci yàgg def ay single mais géwél warut yem ci tëgg kese géwél warut yem ci ay way kese ndax ñun ñoo moom way fecc tëgg taasu lépp loo xam ne aar na rek suñu yëf la xam lu ñu moomul te martu di daaj bokkul ci géwél daan war a set kiid ki nag daaneel wala nga naan dama ne yëfi géwe la <laughs> ñi nga xamante ni tey ñoo di fecckat yi dañuy dem ba ci biir milieu bi rek ñu si bëri duggaat ci li nga xamante ni moo di taas bi wala waay bi fecc bi da ci gisul seen bopp wala non ankay man wax dëgg yàlla fecc maa ngi koy sonn ñi bëgg nañ sama rêve mooy nit ñi bëgg la Sénégal bu la nit ñi bëggee rek nga am ni nga doon ut te nit ñi bëgg nañ ci am Mbacké jox nañu ko bopp wax dëgg yàlla waaye tamit dama laa ko ne la nit warul yem ci benn affaire rek géwél waaw wurut yem ba bu xoolal da ngay fecc tey soo boo fa jógee def single dem playback gi fii jóge ci playback ba fecci waat di dajale def non bongo moom mënuma ko wax dëgg mais am naa xarit yu ko man ku mel ni sama benn xarit boo xamante ni wax dëgg yàlla yàgg nañ Babacar bongo waaw Babacar bongo kat bu la moom moom ñoom ñoom ñoom laay bàyyi yooyu waaye wàllum daal fecc moom ak euh, single yi ak clip yooyu yooyu laa opté waaw yooyu nga opté di si defal sa waara waaye ba tey rek dañuy des ci li nga xamante ni tey moo di fecc buñ ci desee dinañ laal tuuti moo di actualité du ñàkk nag ñu waxtaanee li nga xamante ni tey moo xew fan yi ci Sénégal ñu gis ko muy doon loo xamante ne kenn rafetlu ko dal ki nga xamante ne mën nañu sa mbokk artiste la di fecckat di Ndeye Ndiaye Banaya vidéo bi nga xamante ni tey tas na ci réseaux sociaux yi Cheikh lan lay wax ci loolu. waa damay nuyu waat waa Sénégal di leen waat bu baax di xam ne nañu ànd ak dal Sénégal ñun ñëpp fa la ñu dëkk Sénégal nañu ànd ak dal Sénégal nañ xam ne ñun lañu. ku ne am nga sa bés ku ne tamit di nga am sa bés Ndeye sama jigéen la démb rek ñëw na fii ndax moom mi ngi Gàmbi démb rek ñëw na fii waxtaan ak man ñu kafree xam naa boobu affaire bi amagul may delloo Sénégal njukkal te nga xam ne lii Ndeye Ndiaye dal Ndeye Ndiaye man naa dal ku nekk am na instant boo xamante ne ci nit dara lii ñëw ci yow doo xam fu muy jóge te li ngay jàppe fo mooy nekk dëgg nañu bàyyi bu ñu defee lu ñaaw ñu wane ko wëri ko àddina yàlla moonu moom dañoo jox ñu jënd ciment tabax ay néeg bi ñu jugee ci néeg yi dañoo def ay rideau bi ñu jugee ci rideau yi dañoo def ay porte te yàlla looy def xam na ko nday faral duma ko faral juum na xam naa ne juum na sama jigéen la du ma weddi nit la da xale nekk ci aar bi su ay nit la ñi sama ay doom la samay xarit lañ mais damay bëgg Sénégal toujours nañuy wane lu baax li toujours nañuy wane lu baax toujours nañuy wax ci nit lu baax boo defee lu baax kenn du ko partagé te boo yëkkatoon million léegi kenn du ko partagé barki Dembo Ndiaye sama kilifa jël na xaalis am ku ma ko jox muy waari tereel ko am na ñuy toog seen ruq naan day wane wanewu duñu wane yooyu de yu baax yi déedéet dañuy bàyyi ba nga def benn lu loo xam ne lu baaxul rek ñu gaaw tas ko xale yu jigéen yor ko seen i téléphone di ko xoole kooku te nag fàtte fàtte loo fi am rek waaye fàtte amul. Hmm. waaw. parce que ñëwal fàttali ma. ne. waaw fàtte fàttalu moo fi am waaye kenn fàttewul. fàttali ñu. Ndeye Ndiaye. waaw ah. Hmm. bosom génn na. maa ngi koy ñaan moom Ndeye Ndiaye mu dal te xam ne yàlla ne woon lii dina am te mu suuraale te xam ne jigéen la hmm. suba day am jëkkër bu mu topp vie bi bu mu topp day yaafi ne du mu am na ñoo xam ne lay ree bëgguñu la tey jii am na xaritam yoo xam jàpp ne lay xaritam boo xoolee vidéo mi ngi seen téléphone na nday dal na dal gën a réglé xam ne Banaya gi mu dëkk ah gisuma ne man man xaw ma leen ci lu ñaaw ay waykat yu bare ay yu na dëkk ci kër googu gis xalamkat yu mag waykat yu mag kon ndey nañu dal te teey posé waat poids am xam ne moom mooy nday jaay Banaya dañ koo jur fu ñu ko war a jure waaw mu dal rek posé wu bu mu topp kenn li ko dal dal na ko mënatul mënatul loolu doon noonam dina reetaan mhm. ñu ko bëgg rek dina leen metti waaye na dal waaye Sénégal li ma leen di xamal di ko dénk mhm. ñëpp nag laa mhm. tout nañu toog ci ruq su defee lu baax ñu koy wane su defee boo ko mënee woo ne ko ah, nga kat defal nii bu ëllëgee bu defal def ko mais ñu bàyyi affaire hypocrite bi nañ koy bàyyi. wax nga ko sànq ci biir euh, ne yàlla may nañu ñu tabax tabax néeg ak yooyu noonu ndax nit tey bi nga xamante ne tey parce que je pense que ku nekkee am sa intimité. fi ngay nekk sa intimité ndax jar na jël ay vidéo wala yeneen parce que réseaux sociaux dafa doy waar ndogal doo xam fu mu lay dalee loolu tamit kan laa mere mhm. ki génn vidéo bi mais ndax moom mi doon dund loolu waroon na mais xam nga tey moom euh, bu nu waxee ci lislaam dañ ne jigéen boo ko nuyoo rek dañoo war a dagg sa loxo mhm. xam nga loolu laa dégg ci lislaam noonu ñu ne boo joxee li jigéen loxo danoo dagg war dagg sa loxo kon kon ñu ñëpp kuuñ nañ fii moom bu doon boo nuyoo jigéen ñu dagg sa loxo barke borom tubaab may dox nii la damay raam wala may bërëngu yow miy noonu waaw ñi ñuy noonu mais yàlla mi nga xamante ni moo nu sàkk moom dafa bari yërmande bari sutura mhm. yàlla suturaal nañu de mm-hmm. <laughs> Cheikh Mbacke ngi wéetoo kum takkul waaw yaa ngi wéete koo takkul la cay xew ak la dul xew sunu borom kun fa yàkkun ki moom ñëpp xam na ko bu ko neexoon yàlla da yónni foofu mawti rek mu jël suñuy ru wala mu daaneel dal ba néeg ba daal tasaaroo ñun ñëpp faatu mais déedéet yàlla du def loolu daa am jour yàlla daa am bis yàlla dafa am lu muy xaar te lu yàgg-yàgg loolu dina jot waaye yàlla mi suturaal loolu suturaal Ndeye Ndiaye ah suturaal ko góor kam nekkaloon xanaa ku jot vidéo waroon naa mën a suturaal Ndeye Ndiaye mais Sénégal da gis ko bokk ak kee di génn ak Farba beneen xale bu jigéen ñëw ñu bokk for loolu la ñuy waxee rivalité mm-hmm. léegi bu kenn ki defee dara rek bu ko kenn kaa bi waa Yacine xujja gis ngeen ni ma gis waa kaa bi te dafa am lu xew Sénégal su ma déggee kaa bi dafay su ma gisee góor yàlla bu naan kaa góor yàlla bu toog nan waa fils kaa góor ak yàqante ci góor yàlla yàqante ci góor yàlla xam nga jigéen sax mën na wax kaa bi amul problème anyway non mais góor yàlla bu toog naan waa kaa bi ma kaa la kaa bi kaa mm-hmm. lu ci topp S wala eh, eh, góor yàlla buy wax sama moromu góor kaay ma woon la kaay waa fii gis nga kaay bi xew Sénégal ci góor <laughs> non réel dañ koy wax rek mais bariwul de. bariwul waaw. mais li nga xamante ne tey xew na yéen ñi nga xamante ne yéen ay feccikat yi ndaxte lii du yàq seen image ñun ñu góor ñi loo xamante ne dafa am fu ñu xasee féetee yu góor yi. lañ leen di waxal yu jigéen yi yu góor yi dañ naan leen ay góor jigéen ngeen. Mhm. yu jigéen yi. ñu di wax ay cagalañ. nit ku nekk sooy doxalee ñaar yooyu doo yomb du du du waroo juum yow mi wax yow mi nekk fecckat ah ñu la koy wax war ngaa mën a say noon nit ku nekk ñaari yi moo tax ngay sonn ci àddina ki la bëgg ak ki la bañ ki la bëgg chaque jour da ngay bëgg muy kontaan ci yow saa bu la gisee bëgg ki la bañ bul bëgg mu ko mu ree la ñaar yooyu moom ci àddina mais nit bu dul sóoraale loolu rek pour nga am defet day yomb day yomb noonu nday njaay ni ko dal maa ngi koy masawu nday maa ngi wax ak yow jàkkaarloo caméra bi a ah, nga déglu ma attentivement sa frère Cheikh Mbacke mu Wali Balago Seck international sénégalais taaliba Serigne Touba mooy wax ak yow dama lay digal teey fii àddina lu nekk li la dal mën naa dal ku nekk yéenewuma la ko ndax jàmm la ñu seq ak teraanga seen kër xam naa ko bu baax mais dama lay digal pour ci àddina ne la xoolal boo jugee ci li nga xëppi sa bët yi mook saabu sël saabu xool ñi lay àndal xool assa entourage xool góor ñi lay doxaan xool fi ngay bëgganteel nday ndax ci dégg naa ci weewu bëñ ñu ne nday moo filmé boppam man bi ma ci kaase ba wax ci dama dégg ñu ne ma nday moo filmé boppam te vidéo bi kenn xamul fu muy egg te suba war na nañ la muur nga sëy yaa xam fooy sëy yaa xam ku lay takk mais vidéo bi mën na des te mën na la yàq mën na des sa xel boo leggee del xool li ngay def bul topp sa bànneex mukk ak yëfi xale Sénégal faaw ñu bàyyi yëfi xale faaw ñu bàyyi fukk fukk bi xale yi am faaw ñu bàyyi te internet dafa toj réew mi téléphone toj na réew mi moo mën a yàq nit gis nga li lii moo mën a yàq nit mën naa yàq nit mën naa defar nit tey ji su may su may ko man léegi def taatu neen sama noonu dañuy kontaan ñu ne xool Cheikh Mbacké lii nangam nangam mais tey bëgg ma maye million duñ ko rek duñ ko wax mais ndey li ma la wax rek dalal rek te xam ne fii àddina la yàlla bari na sutura yàlla na la yàlla teggil lii mu fay kenn dootu ko wax ci daraja yonent bi nit ku ci baax laa la xam ak yaatu ak fulla ak fayda xëy na da nga juum di nuyu wa banne yaay yëpp ak Sénégal xale bu fay yeewoo nekk jigéen rek Cheikh Mbacke Mawal di balaa ko sax ñu leen nuyu di leen wax ne leen ngeen dal te xam ne image dafa garaaw image dafa garaaw YouTube bi ma amee ba tey dara dootul fay image garaaw na trop nday ki génn vidéo bi nag xaw ma sa noon la xaw du sa noon waaye bu dee góor na xam ne du góor yàlla dëggantaan bu dee góor moo génne vidéo bi tas ko pour nga am defet du góor yàlla nañu suturalante nañ xam ne yàlla am na sutura nañu suturalante ku ne am na défaut bu ne ci yow nit li muy gën a nit buy sangu du ko summi nit gënul nit ci ay yére nit gënul nit ci takkaay gënu ko ci oto nit lim lay gënee buy sangu di ko sëmmi nday sa frère moo wax loolu Cheikh Mbacke bi Waly Balago Seck mm-hmm. sa frère moo wax loolu lu Cheikh ñu nit ñu koy lancé message rek di ko ñaan yàlla ko yàlla may xolu muñ ndax loo xam mbir mbir ma loo mbir la loo xamante ni ñëpp am yërmande ndax it ku sañoon rek du tegu ci kawam wala mu tegu ci keneen koo xamante ni tamit jege na la ñu ngi koy massaw bu a baax baax waaye ba tey waa def nañ benn single album bi leen mu génn def nañ single wane ma clip bi génn na te yéen xam naa tey ci guddi ku bëgg a seetaan clip bi ndax xam nga yéen lu ma ko jaaxal ci yéen site internet yi bari nañ mais man seeni vie moo ma jaaxal yéen man seeni vie laa xool Sénégal buzz ak seen buzz man seeni vie ma yéen yéen site internet yi ay 10 vie lañuy am am 35 quarante mais yéen macha allah ba pare image yu doy waar ngeen di génne. journaliste yëpp bu meloon ne yéen mi réew mi baax xoolal démb ni concert waali bi. xeetu xeetu ni waali. xam na vidéo yoo xam ne waa lim sol waa lim sol seere. lim sol ni mu am na image yoo ko doon jëlee du feeñ. mais bi ngeen taalee seen projecteur ak ni ngeen civilisé. taxaw professionnel ñu takkal leen seen du yéen. réew mi di Sénégal daal ak Gambia fii nu nekk yéen a taxawaayu taxawaay réew mi ko jël sa sa tur duppee ko réew mi kon réew mi rek la ñor mënoo def lenn lu dul bëggal réew mi ba nag li ñu war rek mooy askan bi kontaan Sénégal kontaan ci li nga xamante ni tamit moom leen leen wan Cheikh yaakaar naa loolee suñu taxawaay ñun xam nga yeen ah. man ni ma gisee waa waale respecté leen noonu Ndiago Oro sunu manager di manager waal respecté leen noonu ah wax dëgg yàlla du ngeen ñu ndaw da ngeen ñëw jël hôtel bu baax bu cher nekk fa seeni seen i matériel ba ma leen seet see gis naa gis naa leen macha allah ngeen ni ñoo xamante ni man lu ngeen wax yéen am sama àddina lu ngeen wax nañ ko def naam la pare naa pour def ko yéen ci sa kër la barki borom Touba barki yonent bi ndax nag seen personnalité seen dignité hmm. ah kenn du yéen kenn du kenn du ñun waaye mm. tamit laataa ñu tas rek dinaa nuyu ne tamit mu ngi si bi si Gambie di maman Fatou Ndiaye Gambie mm. yaay waaye Balago Seck ba ñu ñëwee nag yaayu aana kenn du la laa mooy yaayu aana maman Fatou Ndiaye Gambie Fatou Ndiaye Gambie yaa ah. ah. mooy mooy yaayu aana dafa mel ni bu lay may xaalis bi da koy lakk kenn du moom jëkkëram mooy docteur bu mag ba kenn du moom may nuyu sama xarit bi nga xamante ne mooy bu fashion bu fashion ma nga ca est-ce que xam ngeen ne yéen ñii ku ci ne bu amel na la blouson maa ko wax bu fashion le ma nga ca turki mooy mhm. mbokkum ndayu awa nee na ma Cheikh Mbacke del bëgg rek may def valise yi dama koy tegale muy ñëw del bëgg di solu may def bu fashion mhm. ubbi na place bu mag ca Yoof jàkkaarloog marathon bu fashion ma nga ca Turquie sama xarit ba ah cey ay bu mhm. kenn du yow fay bu la xam nga ñun dañoo gaaw ci fay bor neel bu nañu xaar danañ ko seet si <laughs> kenn du buu uh-huh. daa gaaw dama bëgg kenn du moom di leen nuyuwaat bu baax di nuyuwaat Gambia people fii nu nekk tey ci Gambia xam nga ne lii restaurant bi restaurant bu mag la ñii kenn du ñëw sénégalais yi war a ñëw sénégalais yi waaw yi war a te bëgg fu ñuy dal waaw mu ngi nii nee naa la moo nekk Sénégambia rek restaurant baa ngi nii ñaari tubaab ko moom suñuy xarit lañ bëgg nu ñu ñëw ñu dalal ñu waaw gata ah. ñu ci lépp waaw ñu kontaan seeni café lépp macha allah daal te reer baa ngi ci biir pareegul di kontaan si ñoom bu a a baax Cheikh laata ñu tëj conseil bi ngay joxaat ñi nga xamante ne tamit ñoo di jeunes yi rawatina ñu nekk ci milieu art ñii di dund fecc ñii di dund way ban conseil nga leen di joxaat ngir ñu sóoraale seen carrière. loolu sàkku ñaanu waajur sëni nan sàkku ji ñaanu waajur cinquante mille yi nga am di ko jox sa gel bi mu koy lekk ngeen ni ànd naan booy damay baali jéeg damay def li sa yaay toog xiif amut solo deux cent mille yi nga yëkkati di ko may sa gel jigéen du kenn waxul du ko defal mais bari na ñoo xamante ni ñi ngi wër di wane li ñuy wane image boobu néewul ci ñoom boo demee seen yaay fëgg ko sombi la reere nga dem ci nga dem ci nga dem ci hôtel tëdd fa taal kilim di lekk ginaar sa yaay reere sombi amut solo amul solo xam nga am solo mm. léegi dafa gaaw mm-hmm. te yàlla moom bakkanu jaam ñi noonu teral suñu waajur yi bala ñu ñoo wan ginnaaw jigéen ñi duñu jeex soo fi nekkee ñu ànd ak waaye ci boo tardé bari na fi ay ndaanaan yoo xamante ni tey ñi ngi fi woon kuy ñoom lay way mais ñaanu waajur dafa am solo ci doom da lay nit ñu bari ñooy gis di leen ñee dañoo ñaanu waajur dañ leen di di leen dimbali suñu yaay yi neuf mois dafa métti te ñuy jéggalante senegal na ñuy te bàyyi yàqante amul solo koo xamal rek kilo xamal na la paan koo xamal kilo xamal na la paan nañu suturalante di jàppante te xam ne ñoo bokk ndey ak baay Sénégal njaay gaynde njaay nit njaay kon nañu jàppalante ah di dimbalante ku def lu baax nañ ko wane ku def safaan ba nañ toog ki def safaan bi ñu woo ko ne ko def nga safaan waaye bu ëllëgee bul defati safaan feebar bi nga xam dugg na ci àddina bi yëpp ba tax ñun artistes yi tëggatuñu dara amatul li nga waroon am amatoo ko waaye yàlla mooy dogal moo ko fi indi yàlla mi koy indi yàlla na ko fi jëlewaat yàlla ñu yàlla defal jàmm defal nu sutura a ah nit nag mënoo toog te ñaanaloo suñuy kilifa diine mm-hmm. taalibi Serigne Touba la Serigne Touba laa yaakaar àddina ak àllaaxira waaye maa ngi ñaata sunu kilifa gi toog sëñ Muntaxa ya mu yàgg fi te wér lool te àgg la naal bi mu naalal Serigne Touba dem Kaolack mm-hmm. ka fa toogal Baye Niass mm-hmm. Niass Kouba Abdallah moom it mu liggéeyal Baye Niass te xam ne lépp l'islam la dem Tiwaawoon ka fa toogal euh, moom Alaaji Malick mm-hmm. yàlla na ko yàlla yokki leeram ma dem Laayeen ndax maa ngi dëkk Nord Foire jege naa maam Limaamu ndeysaan moo it ka fa toogal xalifa yàlla na ko yàlla def mu gudd fan lool dara bañ ko metti mu àgg naal bi maam maam Limaamu nar boo mbokk alpulaar yi ka xalifa ka toog yàlla na ko yàlla defal gudd fan ñu nuy ñaanal bu baax te xam ñun suñu ay doom lañ bëgg nañ jël wékk ko drapeau Sénégal dugal ko ci frontière yëpp te kenn du ko téye ndax Sénégal nag ay gaynde lañu kenn mënuñu de ñun ñoo xamul suñu valeur rek ba pare nañ bàyyi complexe <laughs> complexe amul solo complexe baax eh ñun même réew mënuñu réew mu Seexul Xadiim nekk ba lay sa sëñ Tuubaa réew moom Alaaji Maalik nekk mm-hmm. Baay Ñas ba Kunta Jaasaan maam Limaamu Laay Yoof mm-hmm. Alaaji Maalik tëdd fa waaw mais réew moom kon war a complexe kenn wurul lu complexe kenn mm-hmm. nañuy muñalante te jàppante waaw te képp ku seen vidéo bi ñëpp maa ngi lay sàkku nga ñaanal ma ma yàgg fi lool te wér a gars yi ma interview nii ak sama waaja Waly dictionnaire yi mu bëgg mu ko Sénégal def wér te nag sama YouTube ku bëgg a seetaan da ngay def Cheikh Mbacke Waly clip baa nga a buzz Sénégal buzz ak seen buzz ndax ñoom tamit sama ginnaaw la ne ñu ngi ciy jàpp bu baax seen i caméra leer na seen i interview amul ñoom duñ débordé man seen buzz laa gis journaliste yoo xamante ne duñ jàll baat duñ toroxalaat te duñ laaj question yoo xam warutu la waruñu la ko laaj te ki lay interview day civilisé man parfois yaa ngi jóge fu waa waaye cey bu doon yéen journaliste yi. daw da ngay daw. Ah, waaw waaw laaj benn affaire Cheikh vacciné wu nga wu <laughs> yaa ngi wax lu garaaw <laughs> xaaral ma <laughs> ndax géwél bu ngaa xam nga dégg naa da ngay ngaa. day saan ngaa laa mënul géwél bu ngaa ngaa rek ñu toqal la benn fa loolu mënuma ko. ak li ñu dugal ca bakkan moo hmm, loolu mënuma yooyu de damay ñibbi incha allah lundi dinaa bàyyi ko fi jëm ca lundi bu soobee yàlla. baax a baax a baax ah, ci dalal bi nga xamante tamit dalaloon nañ ko ko ni ñu koy waxee rek mu di artiste di ndaanaan loo xamante ni Sénégal la bëgg Sénégal la ko ñor ba taxit mu fay def liggéey bu am solo boo xamante ni nit ñi naw nañ ko ci di ci wane boppam ah, ni ñu koy waxee rek nañu ko ñaanal ndaw la loo xamante ne mi ngi ci yoonam di ci bay waaram nañ ko ñaanal rek fi nga xamante ni tamit fa la bëgg a yegg mu yegg fa waaye di waaw su suñu restaurant bu mag bi nii ñoom kenn du ñooma ah di kontaan nga fii ci Sénégambia fii ci Sénégambia ndax moom fii man na sax Sénégal ndax fii barki Serigne Touba. ki woote nag la Waly. waaw Maria Sine Mbaye seen man nag xamoon naa na du ko ndaw. Mhm. man xam naa ne Waly toj na fu ne dem na fu ne toj na ko mais li jóge senegal mhm. li jóge Sénégal ñëw fii ci Gambia. man Sénégalais rek ñoo bi may jéggi féere dama ne man est-ce que dëgg la. waaye loolu lépp rek liggéey la. Mhm. loolu lépp liggéey la ak yaatal ak yaatale loolu rek la tiituma ci moom nanu joob rek kii <laughs> di kontaan bu baax a baax a baax du nuyu manager Ndiago Euro Wally Balago Seck ñu ngi leen di bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf